3 jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet seen lamb TV mbokk yi tey ñu am mbégte teew fii ni géejawaay jël si fi champion bu mag ñu naa ko yan bu diis mbokkam DM Fils de xam naa ne ñoom ñaatay ñoom laay sekkal waxtaan bi dinaa ko laaj aussi tamit ci carrière am ak combat bi mu jógee ak combat yi nga xamante bi nii ñu ngi koy démarché mu war a taxaw yaakaar naa ne loolu mooy tënk waxtaan bi aussi tamit dinan waxtaan ak Fils de Balla ginnaaw bi mu jógee ci xale bi nga xam ne mooy Goro Sock ak général Malika ak Tafaleer macha allah mu tegle ay dynamique de victoire yu am solo si biir làmb yaakaar naa ne bokk na ci révélation yi nga xamante bi nii ñoo ñoo marqué seen empreinte ci deux mille vingt et un deux mille vingt deux bii nga xamante bi nii génn nañ ko ràññee nañ ko torop torop torop si biir làmb dañuy nuyu yan bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet bu ko defee ñu dugg si waxtaan di siyaar la PDG Kandji production di ko bége bu baax a baax di ko jox waayam di ko wax na ko gis nañ taxawaayam ci monde de la lit macha allah mi ngi leen di jàppale bu baax a baax te bëggu cee feeñ maa ngi siyaare bu baax a baax bu teyee nga ràngoo sengoor yi bu subaa fi se bala ràngoo loo ne. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama waa koñ di nuyu suñu waa kër di nuyu sama mag kàjji sama du nekkatul sama mag sax sama sama papa la quoi parce que am na relation fu muy toll daanaka day nekk papa ak doom quoi ndax lépp lu ma sama waajur di taxawee te nekku fi moom ba mu fi nekkee mu ma koy defaral kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu samay mag iso Lamine parce que faatu waa kër gi yëpp amisaar mamisira maam dama ñoom ñëpp maa la nuyu bu baax a baax ak Ndour Abdou Ndour ah waaye tey mu ngi nii rek ñooy kóol rek. Mm-hmm. waaw ñuy sant bu baax a baax a baax. macha allah nga jóge ci combat yaakaar naa ne avant loolu yaa ngi bëri woon ak usine bu ndàngal ma muy doomu ndàngal ma daan ko sa dernier combat yaa ngi bëri ak R5 sa dernier combat bi nan nga ko bëree. waaw waaj nañ ko ni ko war a waaja yëpp waaj ko ñu ko war a waajandool yëpp li ñu daan préparé làmb yi préparé nañ ko li ñu daan def ci làmb yi di am ndam yëpp def nañ ko. Mm-hmm. na nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam. Mm-hmm. waaw dogalu bu nit. kon léegi bu yàlla dogalee loolu dañ ko koy nangul rek te nekk ci lu ñu war a nekkaat continuer suñu entraînement comme ay xale lañ moom. Mm. waaw. ba moo nekkoon moom nekkoon sama sixième combat. sixième combat waaw naa six mm. combats. Mm. trois victoires deux machine nuls benn défaite waaw. macha allah muy carrière boo xamante bi ne am na solo ba ngi si jógee ba tey lu promoteur yi wax. waaw gars yi ñu ngi waxa de ñu ngi demaat sama combat man moom soo bëggee dégg-dégg Moranta. waaw amul problème mu combat quoi. adversaire kañ la am problème waaye du problème combat yàlla moom mooy suturaal daal waaw loolooy problème bi gars dañoo xaw a tapet quoi dañoo xaw ragal <laughs> waaw ñu doon dox sama combat man ak Babacar Baldé Babacar Baldé man <laughs> mbëxëri am doole dëkk kañ mi nga naan ay kooku la doomu Sil Baldé bi kooku amul njëriñu àdduna gis nga ko moom ak rawaan bodi bodi la mujjee jàpp daan ko jël bu rëy def mu tëdd yaram bi moo déggul quoi moom. waaw kooku kañ famille bi damaa yaakaar ni. mais man maa ko seetaan. bu deelu champion bi ñu laal famille bi. moom defe naa bañ koy sangoo moom nekk foofu daa fekkoon daa fekkoon mu génn de. mais da ko umpale parce que man seetaan naa ko mbapat muy përe loo xamante bi ni macha allah moog franc. Iba Mar bi sama kanam combat bu të. keroog quart de finale lañ ko génne xaw ma demi finale. simple ak lutte avec frappe luñ benn. Eh, barki alxuraani karim bëri ay journalistes yi yëpp yoo xam ne suñu école la ñuy fekk ñuy bëre. suñu fa fekkoon mu ma bëree fii sa baalam yi da nga naan kii yan bu dis. mais arène daa am ay réalité. ah waaw tey dañ ne woon te de. Mhm. tey fii sa yi ma dul privilège yi may may entraînement yëpp peut être. Mhm. isa bu ñu demoon làmb dóor dina ma ko may. arène bu ñu tëjee barrière yi foofu amatul caaxaan de. waaw simple nag foofa la rek làmb simple. ndax doo ci am pression doo ci am dara da ngay ñëw. waaw léegi mel ni ku feebar man léegi dama ko yërëm sax man damaa rëccu sax lu ma ko doon laajee ah. nga koo gis. waaye mu naan man moom ñoo bokk koñ di. rawaan koñ bi muy toog place xam naa ko chaque jour ma jaar fa. Eh. xam naa bu baax. sama koñ la dëkk de la kooku du yàq si moom samay wax sax parce que ñemewul <laughs> kooku feeg la du ma wax ak moom. macha allah yaakaar naa ne am na solo combat Fils de Balla bi bi mujj nan nga ko gisee xam naa ne taxoon nga ci rip moom waaw Fils de Balla nag moom wax dëgg yàlla man moom su ma taxul ci ay mbiram du ma nit quoi du ma gor Fils de Balla yàlla moo ñu boole quoi yàlla moo ñu boole ñu nekk man la moom ay mag ak ay rax tey suñ kër amu fa sens interdit seen kër amu fa sens interdit ma ñoo ko ba yaayam su ma gisul daf may woo dama foo nekk ci lan nga nekk lu tax gis ma la fan yii day yaakaar ne dañoo xuloo wala affaire demee noonu voilà suñ kër tamit la même chose bu ñu toogee Aziz gisuñu ko fa 3 jours 4 jours 5 dañ may woo ne ma xulóote nga ak moom wala am na loolu def sa yéente moom wala woo ko like affaire demee noonu ba ci samay mag dañuy seq ak moom ay relation yi nga xam ne sax man yëgu ma ko quoi kon donc kooku li mu lay moom nekkatul ay xarit rek kii sama deret la voilà te ni man may gis may taxawoo ci moom bis bu mu am bis bu gën a ñëw ci kawam ma taxaw nu raw ni ma taxee woon ci bis bi ma taxawoon passé parce que moom ma ko ji quoi li ma defal ay yoo xam ne mënu ma ko sax taxaw di wax parce que fii tamit yombul ngay bëreek mbër tey su may bëree muy bëre day mel ni man day mel ni mooy bëre su may bëree. amul dara loo xam te ni day des ci moom. lu warul lu war a lu war a ñëw ci man ci man. jeex na taax te loolu moo gën a ndaw na ci li ma la am na yoo xam sax kenn mënu ko wax. voilà day wax ay mbir yoo xam ne kenn mënu ko wax mais daal maa ngi koy ñaanal carrière yaram di ci des suñu borom may ko xel mu ko mën a eggalee ci jàmm. waaw parce que tamit yoon bi neex na ba noppi daal maa ngi koy ñaanal rek mu gën a neex yàgg na de mm. waaw. yàgg na nu ma laa xëy nañ commencé ànd sax. Mm-hmm. bilaay laay wa taala mm-hmm. yàgg nañ de. mais mais mais combat yi des fois ruube day am de yéen général mali yéen a góor a soog lan moo tax des fois ñaari nit bu ñu ànd sax kii di tàngal kii di seral. waaye loolu mooy laaj loolu rek. ah déedéet ñaari tàngal kat moom mënuñu. loolu affaire bandi la rek léeg-léeg sax ma maay tàngal muy seral léeg mu tàngal man ma seral. billaay wallaay léeg-léeg mu tàmburi sama léeg-léeg mu ne ma yan tey bisu laajul xuloo laajul xeex waaw nañ seg baaxee ak jaas yëpp dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm mais léeg xam nga rek ñu koy léeg ñu koy léwu gi day ñëw daal su ñëwee ba si biir bëgguñu ko ñuy néewal doole bëgguñu ko ñuy bunu xaaral ñun kenn duñ tuutal ndax tuutuñ ci làmb voilà loolu demee nag moo suñ ñëwee am na yu bëri yu nit di bëgg a teg duñ ko nangu voilà loolu rek la mu am solo lool lool ne ànd la boo xamante bi nii marqué nañ seen empreinte wax dëgg yàlla ànd moom nekk na loo xamante bi nii yombut parce que damay gis euh, ouverture Masaalikul Jinaan ba ñoom ñaar laa gis ñu ànd foo leen gis fu nekk ñoom ñaar ñooy ànd bu dee ci làmb aussi tamit ñoom ñaar ñooy ànd yàlla na leen yàlla defal jàmm mais da ngeen a bëri ay combat yu bëree bëri si biir carrière am moo xam ba ci booy saar beeg sang ak combat yu ci bëri ban combat moo la si gën a marqué si ay combat un combat mu gën a marqué ci combat Fils de Balla yi suñu waajo général waaw ah. lan moo taxoon loolu combat ba a marqué sax Zé da ngay sonn ci nit ki sax dem ñu la sawaay kii amit monsieur le moo fi bàyyi de. illaahi waaw yooyu doon na yëgsi ci yéen tapet la day daw. loolu loolu ñun ñun ñun suñuy xarit sax dañuy làqatu dem feneen di ko wala ñu bokk ci ñun wala ñu ci suñu ñun. da gis koo xam ni day bëgg Fils de Balla faral Fils de Balla mais du ko gëm quoi exactement du gëm ni kii mën naa daan Zé. loolu loolu loolu moo ñu daloon ci làmb jooju moo tax ba mu ko daanee waaw loolu non franchement parler soo bëggee dëgg-dëgg lam moom làmb général Malika da ci am wàll da ci am cër dëgg la day neexal esat mhm. day mobiliser day ambiance te wax dëgg yàlla lu mbëri def da def suñu làmb ak Zé ni ma ko centré sax centré wu ma ko bii passé mais mais bi ngeen nekkee ci man moom euh, bu ñu ci digg géew soo bëggee dëgg dëgg moo ranta mhm. indil armée française xooluma li ngeen di man sama mbër a ma yitteel man ki muy itteel lekk muy itteel ci biir géew man xooluma noo mel ay loo taxaweeg loo tax yooyu intéressant ma yooyu du ma ko xool man ki mu indi ba moom ay qualité a baax moo tax amul lu may amul lu may si moom léeg-léeg nag naan seytaane waxul dëgg mais yàq na xel mais contre Zé loolu ñu xawoon nekk suñ problème parce que da génn di sonn si dañu naan sa dañ koy daan Zé woo ko mën palmarèsu Zé ak ak nii mais suñ borom bone na daal yàlla atana lépp waaw macha allah yaakaar naa ne am na solo balaa tàggoo aussi tamit dinañ ko laaj leneen loo xamante bi nii mënul ñàkk parce wax dëgg yàlla général Malika ñoom ñaar bi ñuy bëree combat woon boo xam ne bi dafa dajoon réew mi parce que nañ ko jàpp corona bi moo taxoon mu am ñu jàppaat ko Fils Balla na dafa damm ñu ne daw na parce moom xam na ne bu bëreeg général général dina ko rey wax dëgg yàlla tàkku saanam ga ak MC Gaz bébé Modou Lo mu daan ay ndaanaan yu bëree bëri si biir làmb wax dëgg yàlla neexul deret bi ngeen daanee général Malika ba ñibbisi ci biir kër gi nan ngeen ko dundee victoire boobu. waaw ah, comme ni ñu daan dundee yenn victoire yi mais boobu moom moo dàqoon moom. waaw mm. ah, ndax contre G. merci beaucoup parce que ñi <laughs> gëmul woon dinañ ko daan ñëpp boobu marché maam jaar sax pour ñu dugg ci entraînement marché maam jaar sax problème la woon. parce que ñu bëri dañuy bëgg a dem seetaani mais exactement duñu wóolu fii sa bala. waaw dañu bi. ni ñuy gis sa yooyu maanaam dañ koy bëgg mais duñ ko gëm quoi léegi nag daan daanoon général rek mooy waral lim li mu am ni yëpp tey mu mun ko am foofu noonu parce que loolu buntu la woon yàlla suturaal ñu nag ñu daan général ñibbi si ci jàmm mais keroog keroog moo daan te guddi ga neexoon na lool waaw <laughs> laay guddi ga neexoon na guddi ga gañ dama nga sant yàlla <laughs> waaw loolu gañ la sant sax waaye def naa ci lu raw sant de. wallaay wallaay guddi googu neexoon na torop torop torop. Mhm. moo lay wan ne àdduna tamit lépp gëm-gëm loo quoi lu waay gëm rek mu mu jariñ la parce que moom sax bu ko nit ñi di ñaax bañ a gëm yooyu su wéetoo da lay gëm loo ni carrément lii dama koy def. Mhm. boo xoolee lu mu gën a bañ si àdduna mooy lii mu mënoo ko def ba ci entraînement soo ko soolee lu mu mënul def sax nga ne ko lii mënoo ko def mu forcé ko def ko <laughs> moom mënoo lay bañ a dégg quoi moom moom su ma sañoon chaque jour ña koy jox ay combat risque parce que mënoo jig na ko te moom bëgg na mu baatum mënoo moom boo ko waxee rek jaral na ko lu mu am doxo ciy def ko balaa ñëw def fi mu ne nii de ki sës ci yéen Quench la ñëpp nee nan tàppet rek moo tax ngeen di wiiri wiiri góos Quench làmb moo yàqu rek nag yow tamit nag waaye Quench mii di bëri bëri jigéenam mii di buuxanteeg bëri fu bëri mbër Quench 2011 ba tey daanuwul ki ba doon jël avance ba moo daw teel a jël départ volonté daw dem yoonam mais bu ko xaaroon barki alxuraani karim dof la bàyyi leen jàmm ba tey ñu ngi fa billahi dañ leen doon jàpp di leen rangale ñoom ñëpp kenn par kenn ba mu egg ci ponkal mi. kooku de dafa ci bokk ci def Franc. Ah, mais Franc yow tamit Franc gis nañu dem jël jëli Forza. ñooñu moom soo bëggee dégg dégg ak ñoom suñu diggante ak ñoom foofu jàmm mënu fa am. waxuma la jàmm nag am comme dañuy ay wala dañuy reyante mais ay adversaire lañ. dañuy reyante ba mu neex dañuy bëre te billahi wallahi Franc balaa ko àdduna yëpp doon xeeb Franc jël fii sa balla Franc wa gën na neex a daan ci àdduna. li ngay comme léeb ak lépp moo daan yow gëmu li ma la wax. billaay wallaay moo gën a neex ci daan daan neex a daan ci àdduna. qualité yi ne ci Fils de Balla xaj ba xajal ba nekkul ci Franc. te ab tapet la buy nëbbu. xam nga ne daanul cuune. waaye Franc kan la fi daan kan kan la daan. Franc la daan. waaw Franc Doole la daan. Mbaytin. Ngeer bu Sab. waaw Rëns. waaw Géej Mbambulaan. Bébé Saloum. onze combats mbaytin nga fi wax njaga doole nga fi wax. caatu yoof mbaytin non dëgg ma wax la rek mbaytin nga fi wax njaga doole caatu yoof ak. Serigne Ndiaye Tyson 2 waaye Serigne Ndiaye day am na solo yan ma bàyyi la nga tàggoo. maa ngi nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñëwaat si Kandji production waa kër famille bi ñoom Bamba ñoom Lat ñoom Moustapha ñoom ñëpp maa leen di gërëm mu daanta Kandji Kandji Kandji monde entier monde lam war nañ ko jàppale bu baax a baax a baax amel nañ ko njuuxal ñaanal ko ba ci géejawaay gii ma dëkk barke alxuraani karim chaque jour chaque jour chaque jour nit woo ma ne ma Kandji nii ne ma Kandji nii damaa dem ba man yaram dis mag fii sa baala ñoo gën a sonn ci Kandji barke alxuraan xam nga la tax ñu sonn parce que ñun sax du ñun ñun amuñu problème ak moom mais géejawaay ku bëgg kàññi dimbali la wala sollicité la ci ñun ngay jaar yan bu diis dafal ñun nii fi sa baala wala ma kàññi loolu nag suñ demee ba am ko ci moom muy suñu mag mu ubbil ñu opportunité yooyu yëpp nangul ñu ko c'est parce que moom nit ku baax la quoi maa ngi koy ñaanal li mu bëgg ci àddunaam moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defaral wax dëgg yàlla ñun faalewuñu kenn ndax kànji soo bëggee dégg-dëgg man moom faalewuma kenn kenn kenn ci àdduna ndax kànji na ma ma dara bu dee scooter gënal na ma scooter bu cher may dawal bu dee téléphone jox na ma xaalis ma jënd bu cher su ma feebar nag bëgg ko de. non dama koy wax ku ko def ko xool la bëgg su dee feebar moom moo si gën a gaaw wallahi azim ku ma dendal ba dem xonk sax ma wax ne ko kañ diw nii ak nii ak nii balaa maa coupé. mu yónnee ma xaalis. maa ngi koy ñaanal nag bu baax a baax a baax li mu mën ren bu dewee ne mu mën lu ko rëb man moom ragaluma ko moom man kaa Kandji mooy sama patron tey mooy sama patron suba mooy sama papa tey mooy sama papa suba maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko wér defal ko gudd fan ba bis ñëw nag mu xam ñun fi ñu toll ci moom parce que amaguñu lu tax mu war a xam fi tool toll ci moom di sant monsieur le président la Diop. waaw. non kooku day contribuer ci ñun bu baax a baax a baax a baax. comme léegi Modou Anta mu jëndal ko benn bala. comme affaire sa bala bi passé. Hmm. man damaa kontaan man mayuma mais fii sa baala la may. man kii ku ko may mel na ne man nga may. barke alxuraani karim ay millions yu bari la jël may ñu ko. te autorités yi nekk géejawaay waroon koo mën def ci ñun. bari na te defuñu ko. defuñu ko kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di sant sama waa famille yëpp di sant ki may sotti gàllaaj Abdou nduur sama PDG Lamine fay sama mag Abdou Ndour ma may sotti gàllaaj moom laa may sama rax mais moom kenn du moom si man barki alxuraani karim moo anta wax ji may wax ni dafa maa yitteel Abdou nduur billaahi day ñàkk lu ne ci man sóora Ala Ndiaye badu Ala Ndiaye Ibrahima ñoom ñëpp mafia bi maa leen sant non yooyu mag yi ñoo bokk lépp may sant waa kër Alla Ndiaye Juma Ndiaye sama yaay su ma ko fàtte woon rek paramam sama boy ñoom Baye Sall ñoom ñoom ñoom ñoom Sosa ñoo ñëpp maa leen sant ndigal Baye bi mu ngi jëm combat moo ak maa ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla suturaal defal ko ndam Mamor Mbaye sama papa borom Japon maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di sant Fall Ndey Mati Kiri Baara Xari Baara waa kër yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm waaw macha allah bi ngi noonu dama lay bàyyi nga dem bu ko defee Fils de Balla ñëw toog borom coole xam naa fan yi moom ah mbër de day toll période boo xamante bi nii Kalidou ay moromam dinañ ko bàyyi xel trop trop trop trop mbër la boo xamante bi nii boo bëggee dégg dëgg mi ngi si treize combats macha allah wax dëgg yàlla di bay waaram ci treize combats yi bu ma juumul benn sans verdict la si am digganteem ak booy Seye numéro 2 ki ko ci daan mooy Bour Sine ak xale bi nga xam ne mooy Thial Mbeer defet boobu moom xam naa ne. ma juumul làmbi mercredi la woon. ñu ko ñu ko seetaan bëriwul parce que man moom <laughs> maa nekk ko waxoon mooy loolu mais nag wax dëgg yàlla dafa am grandeur wu ne Thiel Mber daan na ma. wax dëgg yàlla mu nekk mbër boo xamante bi ni am na mbër yu bëri bu doon ñoom la dañuy bàyyi parce que bari na mbër yu may dégganteel bu ma la ah, laajee <laughs> da naan diw daanu ma wala diw bëréew ñu mën ak moom wax dëgg yàlla mu marqué empreinte am si biir làmb parce que boo daanee Boy Sarr ñu ne déet nga daan sang nga daan xale bi nga xam mooy wës jàmbaar ñu ne déet nga daan Oniga mbërum ba padi moom wane na ci boppam parce que Oninga ndaanaan la du n'importe qui moo koy daan te bëre bu métti lañu bëre bay waaj a mi-temps mu daan ko daan aussi tamit Tapha Leer ñi ma lay wax ñëpp dañoo jël ay mbapat daan général Malika daan góor a soog mbay gi ba mu koy daan yaakaar naa ne boobu la mbay gi di gën a të kon mbër la boo xamante bi nii palmarès boo ci ne mbay gi ne Oninga ne Tapha Leer ne góor a ne général Malika danga naan kii wax dëgg yàlla kenn mënatu ko bañ ci làmb mais dafa ragal nag de parce que am na benn booy bu dëkk barñi bu muy ragal maa lay siyaar baax di la bëgg. mu rënd maa lay fay. ginnaaw bañ sant yàlla julli seen bi sant samay ñaari waajur bu baax. di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Naawe lu ko sant bu baax. di sant tamit suñu waa kër bu baax di sant sama papa bu baax ak sama yaay. di sant waa géej waa yëpp. waaye képp kuy jàppale fii sa Balla rek maa lay sant bu baax. ku ci mel ni Seebo. maa ngi koy sant bu baax borom posu caare borom oto yu baax yi. képp borom bagage golf yi képp ku bëgg moteur rek wala pièce oto rek ci moom ngay dem maa ngi koy sant bu baax waa kër Mbaye Fall ñëpp maa leen di sant bu baax baax di sant ñëpp di sant sama xarit yi ju mel ne ñoom gànna yan bu diis góor a pata sama mag bi ñoom papi landing bàyyi ma képp ah sama xarit yëpp ñu may àndal. papi mooy papi papi la. <laughs> mooy sama papi la. Mm. Mm-hmm. ok allah am na solo làmb tey bu ma la doon laaj neex na wala neexut yan opportunité nga ci am. ah làmb neex na. làmb moom dëgg naa la moom neex na moom amul lenn si naqari quoi. dafa am mbër yoo xamante am na mbër yoo xam ne dañuy tukki naan ah làmb moom waxatuma lu jëm ci làmb. waaw ah, loolu mais ñoom seen seen rek seen xel egg foofu ñun moom làmb dañ ko bëgg quoi. même bu ñu tukki woon mu ñëwee dañuy bëriwaat. nga ko si biir làmb nan nga gisee sa carrière ci biir làmb depuis ba nga duggee si làmb léegi. waaw man damay bay sama waar rek depuis ba ma duggee si làmb ba léegi sama ba sama waar rek laay bay. Mm. waaw maa ngi ci yoon bi nag. ñaan yàlla mu gën a continuer ah. képp ku bokk ci lim rek ñëw rek ñu bëre. Mm-hmm. maanaam yaa ngi ci yoon bi waaye yoon bi danga nga mujjee loo xamante bi nii dañ ne woon mënul ne muy Oninga Tapha Leer général Malika Gora Sock dañ ne woon mënul nekk bari na ci combat yoo xamante nii sax am na ci ñooñ da naan ax ah, ngi dem stade waaye prix dipp lay doon. man mënul ne laay bañ. <laughs> ah yi nga mënul bañ man loolu rek laay bañ a dégg mënul ne. moom boo ma waxee mënul ne sax dama koy def. a métti Oninga Gora Sock général Malika franchement nag sama combat contre général la gën a metti nag. boobu li ma si jànkuwoon dafa metti combat boobu li ma si jànkuwoon dafa metti bëri naa ci am ci ay blessures lu metti bëri dal ma si ma am ci ay taab. Mm-hmm. waaw métti na trop préparation boobu métti na moom quoi mais sant yàlla tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah loolu am na solo génn nga ci sa combat Gora Sock boobu ba tey nag gaa yaa ngi wax. am na promoteur yu ne ma sax Fils de Balla dafa ragal parce que boobu ba léegi ñu ngi koy démarché doomu daangu ñu ngi démarché Coense mais ay ay waxi dof la ñuy wax. non waxuñu waxu dof sax ñun moo doon da ñun dañoo nekk ci làmb ñun yaa ngi comprendre ñun dañoo war a am. Mm-hmm. dañoo am papa am yaay. ñun li ñuy def suñu combat day metti mm-hmm. waaw kon bu ñu bëggee fay yenn prix duñ si mën a bëri. ak mm-hmm. ñun dañoo am njaboot am ñu topp suñu gën am ñu yaakaar si ñun. te daanaka yenn a voilà ñu ñuy tëgg combat yi mbëri mag yi ñuy jox ay millions yi. Mm. yéene nañ leen ko de mais gënuñu ko yooyu ñun ndax ñun combat yi neex yi ñoo koy bëre. <laughs> combat yi neex yi koy bëre ñooy fay seen bi ñoom dañuy nekk ci kaw di buuxante. Mm. ay revanche lañuy bëre ñu leen fay ay cent millions deux cent millions. te ñun dañ koy yelloo tamit le temps ñu bëri yenn kase yi. Mm. voilà lamb yi neex ñun ñoo xale yoo koy bëre. am na solo léegi fi mu ne nii ñan moo des ginnaaw ñi ma résumé noonu ñan ñoo des. waaw ñi des ñi ma war a bëre rek kon ku mel ne Yékini Junior boobu ba léegi koy laaj Yékini junior dama may chance mu bëre moom. Eh, waaye waa parcelle ah, parcelle moom bu moom kan lay doon. Modou Lo Yékini junior. wàcceel niveau bi tuuti. parce lay doon. Modou Lo laa fay junior mi ngi fa. waaye bàyyi ma kooku bëre ma ak moom waaye. man yéen yéen lan moo tax Garga 2 ndaanaan la de. kooku bëre ma ak moom dafa tardé ci làmb. Eh, déedéet année balancée tax. mais waaw mooy loolu mooy tax nag année balancée. corona bee ci dugg ak defet mais ku toog 4 ans bëriwoo man dinaa bëri ak yow man ñaata preuve laa fi def maanaam loolu mooy ëlbatiku ci ginnaaw. man du ma liggéey ba ci fii nag da nga yàq ngar gi doon na dem xooli keneen mu ku mu bëree mais bëree ma ak mu neex nag. non buñ bëree mu neex. mais yàlla dogalagu ko nag bu ko yàlla dogalee duñ bëri ma moom mais du léegi. macha allah yàlla dogalagu ko. kenn mënu ci dara Pikine am nga fa adversaire. Pikine Pikine pour l'instant nii amu fa adversaire Pikine moom pour l'instant nii amu fa adversaire loolu d'accord naa ci yow bu ma saralee ba ay jam ñaaju ay tëngeej ay barñi oh, na. waaw foofu am naa fa adversaire am naa fa adversaire ama neex mu ngi fi moom mi États-Unis ama neex maa moom combat la. bis boo duggee ci moom doyal sëkk. man man man man damay déranger la Modou. ama neex la dàq déranger dàq laa. ñoom loolay seen problème ñoom loolu la ñuy métti déranger bi may déranger moo leen di métti dama damay déranger ba mu neex Modou. ok barki seen baaw ñoom déranger boobu nag moo leen di jaaxal nag. mais man damay déranger moo Modou te ñoom bëgguñu loolu te ñoom pungal bëgguñu ku nekk si kaw di leen déranger man moom damay jaxase di déranger def lu ma saf hmm. laay sa combat ak ak Coense lan moo ko yàq waaw sama combat ak Coense différence bu xaalis moo ko yàq benn prix moo ko yàq hmm. hmm, soo diggante ak moom benn différence moo ko yàq waaw Coense Coense max moom làmb la Coense deful ci làmb lu mu deful icien comprendre Coense bu ñu doon bëre tey Coense ndax sama coow lay bëre eh sa coow fan ba muy am coow boobu siiwoo. waaye doomu bàyyi nga naan coow Coense ñaari match nii la tegle. ñaar match nii ci làmb la bokk. waaw ñaari match nii la tegle man ma tegle ñaari victoire ñu ne mu ñu ne ñu ne du ci génn ma ñëw daan avec la manière voilà kon Coense ma moom làmb la wax dëgg yàlla bu ñu ma fayee lu jaadu damay bëre. Mhm. waaw man yéen a combat yi du ma ko jël si yéen prix xalaatu ko sax ah, ah. voilà. pourtant pourtant nag maa ngi leen di seetaan seen live ci Fadam Fadam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax de passage di ko siyaare mhm. mais nee na nag coow li coow li tàngoo de mën na laa jàngal bëri. waaw ah, loolu loolu na ko laaj ay moromam yu ko doon wax ñu ko wax tàngoo bëri na mais bu mais buñ desee bu buñ tëj barrière yi. Hmm. bi génn suñu diggante. Hmm. fa la ñu xamee gaynde yi. mais moom nag neexul deret de. Oh, man maa gën a naqari deret foofu maa gën a naqari deret foofu maa gën a naqari deret de. billaay buñ buñ buñ bëre woon buñ bëre woon nga gis lu doy war hmm. xam ndaama la. su ma su ma su ma xam ci ko rek day jóg. <laughs> yëkkati. laay su ma xam ci ko rek day jóg. amul sax ma dem te ñëw. barke maa moom laa ma jooj laa ma jooj neex la de promoteur bu ko tëgg moom moom moom di nga ci génn moom laa loolu loolu la combat boobu ku ko tëgg promoteur bu ko tëgg do am lu la neex de combat bu neex la de wax dëgg ne yàlla moom combat bu neex la Balla Gaye woon na la si ban yow Coins moom moo dox lépp moom moo dox combat bi. Mm-hmm. def wax dëgg yàlla sonn na ci lépp moom la moom. Mm-hmm. moom moo ci sonn moo ci def lépp. Mm-hmm. mais waaw mooy loolu quoi. prix bi ñu fay moo xaw a gàtt. waaw. am nañu yaakaar ne Fils de Balla mën naa mën naa mën naa wàññi tuuti ñee yokk tuuti ngeen daje. loolu du problème ñoom bu ñu déggoo SAF rek baax na bu ñu déggoo Kañ ak Matar Ndiaye. ak Aziz rek moom amul problème. loolu yëpp du problème man moom bëri laa fi nekkee gars yi ñoo ma demal bëre ma dem bëre bu ñu ñoo xoo jël ko si combat ci 1000 francs ma jël ko ci loolu ñoom ñu dem ñu dem bëre ji mhm. waaw si ñoom lay dépendre rek ñoom bu ñu d'accord man d'accord naa pour mhm. waaw bu ñu jógee Bargny wàcc Tëngéej am na benn borom góose bu fa ne mu góose man doomu daangu dóor rek kooku kooku day dóoree de kooku kenn wax ko ci laaj bi nee naa ko man ñi ngay man duñ benn <laughs> wax naa ko de nee naa ko ñi ngay bëril ñi ngay dóor sa góos boobu ak man duñ benn de mais Dangu dafa def ay preuve de def cinq kaw. waaw loolu moom la concerné. ay Guinée ay soq ay ñax <laughs> yàgg yooyu nga ah, ah, soq daa door soq mu daanu. waaw ah, waaw mais loolu. door la. loolu wërsëgam hmm. mais moom boo wuree moom ñu xam lépp dëgg la. Moranda buñ bëree ñu xam lépp dëgg la Moranda. nga wax de. la mu wax ku ma laamu boole bëree nga xam ne am nga xale ngay bëreel. billaay ku ma làmb boole laa wax bu ñu waree bëre nga xam ne xale dëgg ngay bëreel barki sëñ Bamba tey dama leen gën a xale ñoom la seen problème dama leen gën a féete xale damay déranger <laughs> macha allah la boo xamante bu amee combat dina neex parce que bu signature wax dëgg yàlla li ñuy gis ci Balla Gaye rek la ñuy gis ci moom wax dëgg yàlla mais bu kombaa ba jeexee bu jeexee jeex na wax dëgg yàlla mu def sess bu rafet moom ak Lamine Seck li TV Kër Góoru Sock ñu dem fa wax dëgg yàlla nemmeeku ko dem kër fameem ñu toog ñu waxtaan làmb yaakaar naa ne loolu lañ parce que ñoom dañuy liggéey ñun bu ñu xëyee suñu micro la yor kale interview dem si loolu ñoom nag bu ñu xëyee dañuy dem entraînement pour fas yéene jàmmarloo seen morom bu ñu amee métier mi nag dañ koy jaay ba mu saf sap mais bu jeexee jeex na tey dernière question bi mooy sa digganteeg yan bu dis bu ko defee nga jaare fa tàggoo parce que yaakaar naa ne fu ma ko gis nekk gis la fa non moom kii moom sama diggante moom sax loolu moom duñ duñ sax ñu nekk dañuy wax loolu sama diggante ak moom nekkul lu ñuy waxaat ah, wax dëgg ne yàlla kii moom daanaka maak moom xanaa dee rek moo ñu tàqale maak moom waaw moom loolu moo ñu tàqale quoi ndax kii côté bu ne taxawoo na ma ko waaw sama waay la sama lépp la tuddee ko doom rek laa ko dese la moom sama xarit la sama lépp la lépp ñoo koy defandoo lu muy dugg si dama koy woon na ko yan lii loo si xalaat waaw lépp lu mu mënti def mm-hmm. dama naa ko yan lii loo si xalaat mm-hmm. Mm-hmm. sama waay la ak gànna ku si mel ni gànna tamit sama xarit la yan bu diis góor a pata gars yëpp ah, ñoom Mamoussa ñoom Ismaïla ñoom ñëpp gars yi ma kenn ah, sama xarit yëpp ñoom ñëpp samay waay lañ bilaay di sant tamit ah di sant tamit suñu patron suñu PDG Kanje production production ñu koy sant bu baax moom moom mention spéciale billaay walaay moo tax namuñu dara. doo def waru macha bi dagal ma Kanje production. non dégg nga Kanje yow moo tax namuñu dara ñun Kanje eh, Kanje. dawuñu si moom dara barki Serigne Touba Mbacke lu mu ne soo bëggoon ñu si moo tax faalewuñu kenn moo tax namuñu dara Kandji ñu ngi koy sant bu baax ak ñoom tafaa Kandji ñoom Laat Bamba ñoom kii kii Tafa Laat. Issa Ngomar ñun suñ diggante ñoom du nekkul nekkul làmb moo ñu boole ñoom suñu xarit lañ voilà di sant tamit la Diop bu baax a baax a baax Lat Diop ñu ngi koy sant bu baax. aw ma fayam gis nañ suñu combat bi nu mu si taxawee loolu fi dina ko jëndal bolok loolu problème day jëndal booy bi moo doon da sama xarit la mhm. kii moo doon da sama booy la ko jëndal billet mhm. sant la Jóob bu baax mhm. Aziz Ndiaye maa ngi koy sant bu baax Baye Masata Ndiak ñoom Khalil Soro Bado gars yi ma sama gaa yi may àndal ku ci mel nii waa mafia amoo siis bi ñoom ñëpp ñu leen sant ah. gars yi yëpp di sant sama duwaañ wilaat maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Tafa yaa maa ngi koy sant yaa yëpp bàyyi ma kenn sant maire war a bi musaa Bokar Thiam waa Difoncé maa leen di sant bu baax a baax a baax ak waa Poste yi di santaat Cheikh bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax waaw borom pièces yi ñëpp waa Kër Mbay Fall waa Tëngéej waa Bargny maa leen di sant bu baax sama famille yaay ak sama famille papa maa leen sant bu baax a baax bàyyi ma kenn di sant ñëpp. di sant tamit waa Cheikh Ngom fi ma dëkk waa Cheikh Ngom maa leen sant bu baax a baax siyaar ñëpp waaw. allah mi ngi noonu Fils de Balla lañ jël si woon ak xaritam ki nga xam mooy yan bu diis a diis a diis a diis <laughs> mbokk yi la woon di leen jox di daje ba beneen yoon ci seen làmb TV Kalidou jërëjëf.